atelier bi euh, biñu biñu def tay dafa nek lo xamni dorté la euh, té ci kanam li jëm parce que li ñuy wax partage d'information euh, sensibiliser amna solo trop te yi nga xam ni bokk liggéey bi parce que promoteur yi dañu nek ay acteurs en matière d'assainissement waxuma rek assainissement mais ci tous les secteurs de développement et socio-économique donc c'est dans ce cadre là ñu ni amna solo trop ñu dajale l'ensemble des promoteurs xamal en fait li nga xam assainissement lu ñu ko war a ci projet immobilier donc projet immobilier nekk na projet yoo xam je crois que suñuy wax cadre de vie ah su mënee am day fekk ni assainissement bi def nañ ko fi nga xam ni euh, la projet bi war donc ci vraiment une responsabilité moi, comme les ma wax euh, d'abord informer leen sensibiliser leen ci li nga xam ni naka def pour que seen projet yi jël en compte li nga xam ne mooy assainissement. donc ci côté boobu je crois que sunu war warugar mooy informer leen li nga xam ne mooy texte législatif yi réglementaire yi ak juridique yi nga xam ni vraiment suñ ca tënkoo rek mën na am ñu respecter li nga xam ni mooy euh, mbirum assainissement. dañoo toog ministère bi yore mbirum euh, ndox mi ak mbirum setal ak sellal ndox mi aussi euh, ak direction bi nga xam ne moom mooy office national de l' assainissement ñu gis ne. Euh, am na lu bare bare xay ay jafe-jafe yu ñuy gis ci mbirum euh, assainissement maanaam euh, ay quartier yoo xam ne yi dafay taa su am su tawee wala ñu gis ay ouvrage yoo xam ne yi ndox mi jóge ci gaanuwaay yi ci kër yi moo ciy dugg nit ñi di ci def loo xam ne lii lu noonu ah, manque d'information la ñu nekkoon nañu def lël bii boo xam ne bii dañ koy seq ak autorité administrative yi maanaam euh, gouverneurs yi préfet yi sous préfet yi autorité territoriale yi tamit maanaam maire yi ak euh, ñi nga xam ne ñëpp ñoo yore mbirum assainissement ak ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey ay projet immobilier moom la ñuy wax promoteur immobilier mu nekk promoteur immobilier public yi ñi nga xam ne nguur gi moom moo leen moomal boppam comme ay HLM ak ONAS mu nekk promoteur euh, immobilier privé yi nga xam ne dañuy liggéey ñoom ñëpp ñu wan leen ne euh, su fekkee ne am nañu projet bu ñuy def di ko jaay nit ñi war nañoo jël li nga xam ne moom mooy assainissement boole ko ci ba pare nag yemuñ ci foofu rek ñu rappeler leen li nga xam ne mooy sartu réew mi ci loolu ci code de l'assainissement wax ko code de la construction wax ko waaye tamit euh, jox leen ay jumtukaay yoo xam ne yii ñu bañ a xam ne assainissement du rek euh, tout à l'égout maanaam yëpp dem ci égout mën ngaa def sa benn quartier sa benn cité soo waxtaanee ak ONAS mën nañ laa permettre nga am fa benn système assainissement autonome boo xam ne bii dana permettre population yi vivre ci benn cadre de vie bu baax ba pare euh, éviter affaire ndox yu yu bon yi di génn ci tali bi walla ndoxu taw bi di di di indi mbënd ci quartier bi.